abonnez-vous, ciao le Sénégal de la République audience président Sall ñu doon waxtaan ci seen biir mën nañoo jàpp ne nag waxtaan wa politique moo ko tënk ci naka la war a mën a def rek ba daldi di mottali wala mu daal di àggali yeneem ci mairie bu Yoff ci ndombal tànk li nga xam ne takkal nañu ko ko waaye askanam ñoo ko ko daldi di fal ba mu bañ a tas seen yaakaar ñuy gis yooyu la nataal nag nit ñi di ko partager ci réseau yi ñenn ñi lu ñuy laaj mooy Seydina Issa Laye mi nga xam ne moom ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di yeewi askan wi fa la bokkoon ba ñu koy faral ce mairie bu Yoff lu waral mu dem fekk ji président Macky Sall ca palais de la République ndax dafa fas yéene wan ginnaaw waaye yeewi ngir dem fekk ji njiitum réewum Sénégal am déet loolu laab laaj boo xam ne askan wi samp nañu ko wala dafa dem fa yéene waxtaan ak moom ci lu jëm soxal askan wi lu jëmale réew mi kanam am de lum ci mënti doon comme ñi ngi ibbi suñuy gëtt di xol dañu xam fan la wanet di mujjé ak gëtam abonné len activer seeni cloche de notification ngir ngeen mëna am suñu vidéo à temps réel Abonnez-vous, ciao le Sénégal